qualifier, on pourrait les qualifier de haute trahison en vérité suñu institution ñooy dox sénégalais am benn kenn benn sénégalais booy fag mu am sentiment ne y a une crise institutionnelle def na caricature nag conseil constitutionnel ak le parlement. sans pour autant préciser. parce que amul dara y a rien du tout y a aucun blocage dans le rapport rapport yi sax dafa bëriwul contrôle de constitutionnalité des lois la ñuy def. ak le contrôle obligatoire des lois organiques amul amul loo xamante mun nañ taxaw ne lii crise la crise mooy que ñu toog loo xam ne askan bi soxla nañ ko mu am blocage donc c'est un prétexte donc on cherche justement à couver une situation et on trouve peut-être benn bout tunnel ñu ñëw jóor ñu ko au moment boo xamante ne ñu ngi war a dem élection dafa ne mënul émixé wu dans les relations entre ces deux institutions mais loolu la def conseil constitutionnel moo proclamé la liste définitive des candidats les décisions du conseil constitutionnel s'imposent à toutes les autorités article 92 de la constitution mu le dafa abrogé le prof Ngouda a parlé de la conséquence de l'abrogation les actes posés jusque-là dans le processus sont considérés être valables et maintenus c'est vrai que loolu aussi dafa am mbir genre médiocrité buy feeñ genre cuune buy feeñ en vérité ci doxalin yi maanaam tey vingt yi valider seen candidature seen candidature day subsiste les la les cautions déposées on les reprend pas c'est cela en vérité la portée de l'abrogation boo demee xale yi def deuxième année dañ la koy jàngal le retrait moom mooy abîmer une décision pour le passé et pour l'avenir mais abrogation dana ni fii fii lii acte yi propos lii affaire amoon na bi mu convoqué lii am na des effets donc lu effet yooyu reste valable beneen bi mooy li tam ma ne lii am na véritablement trahison il n'a pas joué son rôle mooy que le parlement da ko régulièrement consulté pour mu joxe avis nee na il est le le garant de la constitution mais article 63 dafa mettre la dispose l'article 31 là ci clause d'éternité buy joxe avis le président la buy joxe avis son avis doit être renseigné il doit consulter alors donc en tout cas ses conseillers ñu ne ko mais président de la République la durée du mandat on ne peut pas la toucher kon avis bi mu joxe moom avis lan la parce que avis bi mu joxe day joxe présomption de validité au projet proposé par le PDS alors qu'on a l'article 103 beneen bi mooy que damay sentir benn genre dissimulation parce que wax na ci dans son discours ñi mu consulté dans la presse terraine des gens dit ne recevoir na leen moom nee na consulté na président assemblée nationale nee na consulté na président conseil constitutionnel on dit que il a reçu il a reçu des candidats pourquoi mu recevoir tel candidat bu nekkee am na te recevoir ñeneen candidats yi c'est vrai que moom toog na te saam ay candidats xool ñi nga xam ne ils peuvent être valables c'est que on est dans la véritable manipulation on serait dans une véritable manipulation sénégalais waruñu ko kenn waru ko nangu et il pourra pas le Sénégal après la fin de son mandat même si on pense à un prolongement du mandat il ne la par le faire légalement et légitimement il faut que loolu mu leer mandaam jeex na donc bu ñu jugal ci loo xamante ne ni kenn du ñu du parce que mu ngi naan crise nee na crise pré électorale ak post électorale lay bañ mais boo ko créé crise bi commencé na. mais pour électoral lu mu ci jublu. mais laalagul nee na nee na day xaar non nee na la tenue des élections nee na leneen li ça va se jouer à l'Assemblée nationale. Euh, waxagul euh, au avril. nan la mbir mi di demee peut-être que loolu c'est le dialogue politique moom moo ko nar a régler non li xam ne moom moo xew mooy que moom jël na décret ne yéen askan bi dootoo leen dem élection le 25 parce que il paraît parce que moo abrogé le bi décret askan bi léegi article 31 lay xaar parce que article 31 la PDS proposé donc une réforme pour ñu reporter l'élection parce que c'est l'article 31 qui rend intangible la durée du mandat du président de la République teg une fourchette claire et rigoureuse bi nga xamante ni donc fii lañ war a organiser élection président de la République buy convoqué le corps électoral fa lay samp loolu tax mu ne la compétence liée la compétence liée mooy boo xamante ne yow sañoo bañ te bi ngay def dañ la ko le sens dañ la la c'est la loi qui moo lay indiqué le sens même de ta décision c'est-à-dire la loi t'oblige de prendre la décision mais aussi la loi t'indique le sens justement de ta décision article 31 boobu loolu la wax ne comme article 103 de la dafa ne mënuñ ko laal léegi nag li ma li ma jàpp mooy que même si la proposition du PDS passe parce que nee na y a une jonction entre les forces de l'APR entre Benno et du PDS démb ministre Doudou Ka calculé na fi boo xam ñaata ñaata lañ war a am 105 105 dans tous les cas on sent aussi la crise am na ñu si d'accord ça veut dire que c'est pas évident est-ce que tous les députés alors donc ñoom ñëpp ils vous oui même si ça passe la loi la loi constitutionnelle adoptée pourrait être alors déférée au juge et le juge est à l'obligation d'annuler alors donc la donc la procédure à moins que mu def fuite en avant peut-être xëy na peut-être. mu déclarer incompétent ah, non mënu déclarer incompétent parce que la protection est matérielle. c'est l'article 103 au moins que mu bañ jouer son rôle parce que rôle bi nga xamante parce que aussi conseil constitutionnel dëgg-dëgg moom itam ci banc des accusés la ne 2001 ba léegi maa ngi koy wax fii démb bu yaakaar naa le euh, le doyen Assane Assane Assane Ba ba léegi laa bindeel dama leen bindeel lettre ne leen wax leen ma lu tax man sama photo mënut a nekk ci fii keroog la conseil constitutionnel tàmm tànn di nelaw bu ñu ko indee loo xamante ne mu ne mu ne rek lii du sama compétence cest à li lire ses compétences d'une manière restrictive benn courage maanaam son rôle de régulateur du jeu politique donc assumé wu ko donc et cetera loolu moo taxoon ñëpp di wax amul benn candidat fii boo xamante ne di wax ne il faut ñu réformer conseil constitutionnel y compris Sall dans son dans dans dans son dans son yoonu yëkkute chaque jour ma au conseil constitutionnel seetaat leen image la solennité avec laquelle moom la prêté serment en 2019 dafa wuuteel lool ak bi ñu jox bi bi mu adresse bi mu ñëw janoog Cheikh Tidiane Diakhaté pour prêter serment parce que moom son projet c'était de réformer la de de, de, de diriger au, au Sénégal une cour constitutionnelle. bi mu ñëwee la ñu réforme def benn réforme naan xaw ma lan président assemblée nationale mën la proposer et cetera et cetera donc on maintient presque. merci lenn sax dafa def dafa yàq conseil bi dafa yàq conseil bi ci ñaar pour ñu ne moom la membre conseil da nga doon def vingt cinq ans de carrière dañ koo réformer def ko vingt ans. c'est-à-dire que stage xam nga bu ñu leen nommé stage parce que day fekk je me pose mais pourquoi wala dañoo toog ba en en principe dans l' appareil judiciaire ci prof université amatuñu war a def vingt cinq ans carrière yaakaaruma ko amul on peut en trouver am pagaille pour man am na ñu ñu bëggoon dugal loolu laa jàpp. nga xamante ne remplir une condition imaginez que si si souvent c' est ça que ñu réformer la loi organique dugal loo xamante c'est pour satisfaire des situations personnelles beneen bi mooy que conséquence dans sa tradition le conseil constitutionnel fii nii dans sa composition amul professeur de droit man loolu mu jàpp ne les bévues la dal PDS foofu la jóge parce que nee la la mutation de la de la nationalité boo demee ñiy jàng droit international public dañ laa naan léegi nit ñi nekkatuñu ay nationalité exclusive ñu ngi ci ay nationalité dominante xam xam nga tey le professeur Daouda Ndiaye dinaa ko nationalité américaine mu ne man dem naa Amérique dem passeport Sénégal laa demee visa baa ngi nii mais looy waxati bu nekkee war di gis naa ñu ne il a il a voyagé récemment avec un donc man jàpp naa ne dëgg-dëgg ñu ngi dugal ci caaxaan bi nga xamante ne nii donc illégalité absolue boo xamante ni def lu la nekk kese laa gis